wala kon sax euh, mën nañ bañ a contre wala kon des précisions envers la France li plus, si am rek peut-être Serigne dinañu jox li nga xam nekk moo di analyse am Serigne. Mhm. Euh, Madiaba Diagne nee exemple Ousmane Sonko bugul les honneurs de Diomaye Moral. waral jamono ja Diomaye nekkee le président nekkee force si douane ak li nga xam nekk moo France muy dal si ko France exactement. est-ce que tamit jàppoon ni peut-être lolu dina mettre mal à l'aise ki nga xam ne que le président en France le président euh, Diomaye. Hmm. pourquoi Je mettre à l'aise mal à l'aise parce que d'après ma moom nee mais je parce si c'est non non le problème bi xam nga c'est-à-dire je ne pas yow sax temps si si si si si si parce que xam nga nit pas dañu total nit nit ni ñi seen mentalité yi xolal leneen a ngi si ah. surtout waaw ma jàmbal day xëy rek jël kiwam boobu rek di jàmb. sien <laughs> de quotidien bi di jàmm rek léeg-léeg dafa jawal waaw mais mais xam nga xam nga tamit euh, euh, nañ waxante dëgg daal vraiment nit ñi sonn nañ te dañu <laughs> xool nit ñi sonn faalu si ay waxu wax wax yoo xamante ni nii man de wax dëgg yàlla bu ci nit ñi sonnul man sonn naa ci man Serigne waaw man te xam naa arfan sonn na ci tamit mais Serigne sur moom ah <laughs> mais sonn na ci chaque jour ma jëm ma jàmbal ma jàmbal wax yi muy wax amaluñ benn njëriñ fàll taxul sa bir bi fess est-ce que dégg te ñun ñoo ci wax ba bëgg dé rek ñun ma jàmbal sa dañoo wara fay mais le fait que Diomaye dem France exactement peut-être euh, le président Sonko di dal ci kaw France par rapport ak euh, ces tirailleurs yi nga xamni itam wa France ñoo ñu bëgg a génn liste lim te Sonko néna lool Afrique mu ne ko Sénégal mu na ko defal boppam mais moy yoon wa lam wax moy dëgg mais est-ce que le timing est bien choisi. quel timing peut-être xalaatuma jabar amaan na kenn ku mën a xalaatee la même chose. man de ma jàmba rek laa dégg mu xalaatee noonu. parce que euh, parce que Bougane aussi xalaat na la même chose. non euh, non non bokkuñ sax fu ñu waxee. Bougane jàpp na ni non Bougane moom ay affaire de panafricanisme tout d'abord waaw moom yooyu la wax mais waxul ay li kii Madiambal wax waxul loolu de waxul day yàqal su kii de. voilà hmm. dafa mel ni ay honneur Sonko kii daf koy daf koy déranger waxul loolu. Hmm. donc ça n'a rien à voir ak. waaw mais Madiambal moom xam nga Madiambal moom man jàpp naa ni Madiambal moom day xëy yeewu xam nga ndekki ba suur tourné jël benn bigam. xaymaam bi bind ko neex tu as

50-50 les donne wala Sénégal su que fils Sénégal Sénégal mu ëppale si ay pourcentage euh, la France Thierno Alassane Sall mu jàpp ni dafa yaakaar loolooy am mais dafa gis le contraire. exactement ouais dama ne ni tey jii euh, France ak Sénégal. Fallou le xoolal gars yi gënuñoo nekk nag ay intellectuel nit ñi hmm. est-ce qu'il y a des que ce soit muy Thierno Alassane Sall ak ku mu mën il faut que ñu xam ni gënuñu nekk intellectuel et gënuñu intelligent aussi les gens. Nous devons réfléchir. ok est dire, vous avez am ni France relation la le avec Sénégal ci ay at hmm. est hmm. dama le ñun su dañ dañ am ou jur nañu France ñu jur ci nous devons ñu hein? sur le plan histoire sur le plan histoire tu as vu une relation ak France du tey dafa mais maintenant réew moo xamante ni nag yàgg nga seq ak moom ci lu ne ci lu bari ci domaine yu bëri te la nga seq ak moom lu baree bari jàpp nga ni lu ci bëree bëri sa njariñ bàyyiwu ci mais réew moomu da ngay ñëw rek tey ci ñetti fan ñeenti fan nga ni lépp da ngay da koy da koy danga koy da koy da koy mabal mu daanu mais bu boobaa yow yaay daanu dama ne la waxoon naa la ko fii notre relation avec la France ça doit être maanaam démarche yi ñu war a am avec la France ça doit être des démarches mm. beaucoup intelligentes et stratégiques parce que mënuloo ñëw rupture brutale tey France dégage France dégage tey mënul ne ku la ko waxul dëgg ne maintenant bu fekkee nag dañu am rupture bu ñu wootee par rapport suñu digënté ak France. ci walum ci walum na ñuy ak na jëflanté ak nangam ak nangam xoolal kooku processus lay doon fàllu processus lay doon xam nga luy processus. Hmm. mo manam da ngay wekki li tay ñu doxat ba ci kanam tuuti nga wat li ñu doxat ba ci kanamaat tuuti nga la lool et que processus bobu xolal mën na jël sax 100 ans di dem mais da nga mëna a tay ni rek rupture bi nga ni rupture total da ngay daanu da ngay effondrer yow parce que racine bi racine bi fondamentalement racine bi il faut nga toucher ko ba pare légui nak stratégiquement démarche bi motax mëna le la démarche bu stratégique lay doon rupture kay commencé na am. ci mm. suñu digënté ak France. Mm. lan mo la koy won bas fim bim falo fan ak fan la ñëk dem. suñu dëkkandoo yi. dëkkandoo yi Afrique la njëkk a dem loolu du rupture. Mm. ci côté boobu. Mm. président Macky Sall moo mm. mujjee nekk président avant ñoom ñuy ñëw bi mu faloo benn réew la wër fii Afrique door a dem France dafa wër fii mennum réew pour bañ ñu ne ko ah France nangam dafa ñëw cof fii am mennum réew rek dem wuy ji Macron est-ce que dégg kon jàpp naa ne aujourd'hui am na. ay aspect yi ñu teg par rapport ak politique de rupture bi ñu bëgg avec la France mais mënuñu ñëw ñëw ni xoolal jiital offer yi il faut ñu dem stratégiquement quand même mm. fàllu mm. loolu mooy xam-xam mm. stratégiquement la ñu mën a demee mais tab ni bëgg wax ak wax ji wax ji leen ne xam nga Thierno Alassane Sall vraiment man dama xamatul xam-xamam fu mu ko réer quand même hein nee na bas à euh, euh, ci espace wu xaw ma deux trois mois dem na fi France ñaari yoon mais est-ce que officiellement bas génn yim génn c'est des sorties dédiées exclusivement à la République française mm. Mm. beneen bi lu ko yóbbu woon invitation Gavi mm. bii lu ko yóbbu woon géo kii hmm? ci sommet bu mu waroon a fekkee sommet bi est que waxu sport rek lañ fa doon wax bañ naan dem yi ñu dem c'est folklorique amul njëriñ ci ndaje moo xamante ni dañ fay wax waxu santé dañ fay wax waxu lu lu lu mën a jëriñ àdduna bi nga ni seen ndaje moo xamante ni c'est folklorique non il faut arrêter quand même moo tax ma ne la rupture bi wax avec la France rupture boobu mënuñu xëy ci ñetti weer ñu ne rupture la ñu seqoon ak France yëpp c'est fini. mais Serigne suñu conseil des ministres amul mercredi ak wax ci lu muy bëri bëri suñu conseil des ministres amul mercredi. ah loolu de loolu de fàtte wu fi réew mi fi réew mi fi réew mi mais mais xëy na France. waaw mais ndax lan. Ah, damay dafa dem tukki ji le président. mais premier ministre a ngi fi mais amul mercredi. ah mais en tout cas ce qui est sûr c'est certain hmm. moom conseil ministériel moom bu président nekul hmm. fi bu premier nekk ministre neké constitutionnellement parlant mom rek moko meuno mënoo. mën na ko xaar franchement. wa meuno ko man man mi bàyyi ma ci moom. fayna euh, peut être dossier yi bari mais bàyyi wa ya y' a des urgences quand même surtout aussi marine nationale bi sank dégg naa ñu ne ñu intercepté 180 euh vingt et tant d' donc en tout cas le plus mën am rek euh, ya des urgences qui nous attendent ici. Hmm. merci beaucoup Serigne ñu lay jaajëfal bu baax a baax. a ah, baax baax peut être. Euh, deux secondes pour Bougan. Nous avons fait deux secondes rek na ni ki nga Ousmane Sonko euh, panafricanisme bu campagne ak en opposition lu na wane ak ba mu mi euh, propos de de de Alassane Sall exactement. Ah mais xam nga Sonko biñu Sonko bi dans l'opposition mais il n'est plus dans l'opposition. Il ne peut, mais parole, non, non, il ne peut pas continuer à, avoir le même discours que nous dans l'opposition mënul il faut que ñu xam ne hmm. le président Bogan mi tay buñ ko président de la République dootul yor discours bi mu yor dañ waxante deug Alassane Sall boko ko président de la République dootul yor discours bi mu yor parce que c'est une discours ça déjà dañ koy contrôler palais présidentiel boo fa demee dafa am cellule d'encadrement hmm. am ñom ñolay encadrer hmm nañ la doon encadré ci sa parti day sax am différence ak nañ lay encadré. tu deviens même la première autorité de ce pays. kon am na yenn discours yoo xam mënatoo ko yor maintenant wax na ci panafricanisme bi wax na également ci ci ci xale yi nga xam certes c'est vrai. Hmm. mais tamit bu ñu négliger aussi wala bu marginaliser cette question concernant les tirailleurs ça fait partie des priorités quand même ça fait partie des priorités C'est tout à fait normal nag nga alerter les nouvelles autorités par rapport aux urgences mais il ne faut si actuellement fi ñu amul lépp urgence la amul tout est urgence hmm. tout est waaw hmm. tout hmm. tout est une question d'urgence amul dara lu wara minimiser dañuy bàyyi rek def li mais lepp urgence la actuellement nii. merci beaucoup Serigne ñu lay jaajëfal bu baax a baax baax ça a un plaisir euh, di la dalal ci li nga xamné ko moo di plateau bi waxtaan ak yow si li nga xamné ko modi di ponk yi gëna fassantiku alors bay nga daal tagato exactement. ak euh, tagato budul budul xawmu ma nu ko di waxe budul tagato budul tagato rek. jaajëfal la ñu la jox rendez-vous defe naa àllarba. incha allah rabbi ñu dajawaat. Hmm. ci beneen actualité. Hmm. beneen émission. waaw di sant yàlla bu baax a baax a baax di jaajëfal aale aussi si région bi mais Fallou mais del jënd ndox ñuy naan quand même. <laughs> <laughs> waaw maintenant mais non non non non loolu la déedéet loolu doléance la. si waaw waaw waaw moo tax moo tax mais na nga war a teg fii bitel ma teg si bitel. pourtant pourtant m si yow laa fekk si moo tax ma ne si waa maintenant si ñoom neen teg ndox. ah mais bëgg naa nag à chaque fois moom fi ñëw parce que ma mar ndox. si ñoom su ñu décoré plateau bi. déedéet da leen teg ndox. waaw nu noo kii dafa affaire c'est que dama mar quoi te xam nga du yoon. <laughs> seen plateau bu rafet bii war na am ndox quand même. waaw dama mar quoi te dama waroon a quand même xam nga <laughs> da nga war di mar di naan. yoon donc doléance bi jàll na mais euh, mercredi boo ñëwee naa fekk ndox direction bi. direction bi teel a ndox si bi franchement. alors merci beaucoup. am ngeen xaalis quoi yéen tamit ah yow ku la xool xam ne am ngeen xaalis dañ jënd ndox bi déedéet cent franc lay jar quand même. chérul merci jaajëfal ya, ya, nii lu baax man sama ndox mi ma daan daan ni ndox mi dama ya, ko fàtte quoi dëgg la dëgg la mais normalement war fi ñëw fekk ndox si yoon si yoon hmm? ay ndox ak ay petit four ak ah, yooyu noonu non yooyu sax garaawul mais ndox rek daam eh, xam nga xam nga xam nga xam nga aussi ñi yi euh, les non dinañ ah, am visibilité la mais ndox rek xam nga euh, merci beaucoup waaw ba mar <laughs> comme émission émission A2 la amul noppaleeku boo waxee ba mar rek nga nga jël ndox mu sedd sa put gi sax mun a sedd quoi. commentaire Ndiathie Fall. Ndiath ziar neen la. Ndiath neen na xanaa goro a calibre yi ay sàcc lañu ak ay reykatu nit ak ay jaaykatu drogue <laughs> non su ñu goro góor a calibre yi mooy maanaam. émission bi euh, euh, ñi nekk si li nga xam ne que moo di maanaam ñu amoon ay responsabilité yoo xam ne dañ leen ko dénkoon ay ministre ak yooyu noonu on parlait de ce sens exactement alors. merci beaucoup Mboki, du di à émission le point de l'actu merci beaucoup d'avoir suivi Mes également l'ensemble des équipes en régie on se retrouve euh, demain inchallah y a un programme d'ici là portez-vous bien et passez des excellents mois sur Sénégal 5 bonsoir